bismillahi irrahmani irrahimi allahuma salli wa sallim ala man axyaytu bi hadihi alabyaati yowma mawlidihi hada yasuru rasula allahi xatti bi mawlidi yaduumu lana bishran yafi xayra mawlidi waqaani ilaahi kulla durrin bijaahi man lahu ddahra xatti duuna lagwin wa mufsidi محمد المختار لم يات مثله وليس يجي مثل له نعم سيدي مرامي من المولى أتاني بلا أذى بجاه شفيع العالمين محمد وثقت برب العرش عبدا له به وما زال قلبي بالرضا ذا تقيد لخير البرايا من قلامي بشارة ولي قاد تخصيصا به النفس تهتدي دعاني إلى إحياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا حوى كل سودد هدياتنا تصفو لدى الله سرمدا laay tàmbali ci liggéey bi rek kàddu yi nii la fas yéene demee ginnaaw bi sëriñ Moudou daanelee aayaat yooyu mu doon yëkkatil téere bi yàlla bi dañuy dugg ci conférence bi sëriñ mooy Fall muy ubbili sëriñ Fall Bousso Hassan mu ci jógee sëriñ Sall Bousso Abdoul Wadoud dana fi jàng genn xasida boo xam ne da koy dalalee sunu gan yu tedd yi bàyyeekoo Cheikh Moukassir Mouhamadou Fadel bu noppee ana am ku wax ci diggante sëriñ Fallou ak sëñ Mor Roqee Bousso muy sëriñ Ousmane Bousso um sëñ Mahmoudan bu noppee dinañ jox gan ñi kaddu kii jër ci turu euh, jabar Cheikh Mamadou Fadil ñu nuyu bu baax sëñ Ahmad Rafaañ sëñ Ahmad Badawi ak sëriñ Xaadim ak mbooleem délégation bi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ko Cheikh Mamadou Fadil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 suñu kilifa yi ñoo baax yi ñu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi ñu ko tuddee sëñ Ahmadou Rafahi Mbacké moom Cheikh Abdou Fadal ak sëñ Ahmadou Badawi ak mbooleem yay mbokk yi rek daanaka day yóbbaale ñëpp ñu sant yàlla bu baax suñu borom nag ci jotaay bi nga xam ne may nañu ko ñu fekk ko ci weeru tëdd bii muy weeru rajab mu nekk nag leen am solo ba tax njabootu Cheikh Abdou Khadre gi tànn kër Serigne mu Rokhaya Bousso ngir fas yéene tàmbale ubbi weer wi li nga xam ne mooy magal bi ñu tànn nag thème boo xam ne thème bu am solo la muy al muridiya ka mujtamail misaali maanaam li ñuy wax rek murid bu ñu bëggee xam dëgg mu am ci société nañ xool lan mooy murit muy ak taalibe foofu la damay wax am solo ci li arab di dégg ne li kulli makaanin maqaal wa xayrul maqaali ma tabaqa al xaal ndax bu ñu demee ba waa kër Cheikh Modou Fadal tànn waa kër Cheikh Modou Bousso di waxtaane ak murit loolu dañuy dellu ci histoire ndax dañuy wax ne ak taalibe ñi ak murit ñu ngi tàmbalee ci ñooñu ndax bu ñu delloo ca Cheikhul Khadim yàlla na ko yàlla dolli gërëm ba muy jàngale taalibe dafa dajale ak njabootam ñooñu bokkoon na ci Cheikh Abdou Fadal ak suñu wolof tey Bousso moo tax kon bu jamono Cheikh Abdou Fadal bi tànnaatee tey nag day dañuy sant yàlla day ndax day mel ni kon dañu ko ilham moo tax kon Euh, Sëriñ Fallu Bousso Xasan dina waxtaan ak ñun ci nan lañuy jàppe yoonu murit ci ne mooy société bi nga xam te ni bu ñuy jël misaal ak royukaay ci moom lañu war a war a xool kon ñu daal ñu teewlu baax a baax ànd ci ubbi suñuy xol ak suñuy xel man koo taataan ba lay wax nañ ko jàpp baax baax xanaa ba maa koy dox rek ma jégalu suñu kilifa yu baax a baax ci toogaay kaw bi waaye ngeen may ma rek ma jël xaaxira bi wax ne isa baaxal amru ittasaa maa ngi tuub baax ci toogaay kaw bi ndax yéen samay kilifa ngeen kon sëriñ Fall Ndousso dafa dal maskuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ñaan sama borom jàggal ko fi ci mottali ay naalam waaye ñuy ak ziar bu baax njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel gi nga xam ne nii ñoo fekk si njabootu suñu ma roq yi ci barab bi nga dundal fii goon bu am yi nga xam ne moom lañ ne fi bokk ñoom jotaay ñu nuyu baax sëñ Baara Mouhamed Lamine xam ne nii moom lañ mu ko waxee nag mbokk yi li waxoon ne nañ ci waxtaan mooy aw xeet wala aw askan wu misaal woo xam ne nii nam war a mel mel ne naka lañ ci mën a joxe askanu murit wala xeetu murit ñu joxe ci royteef ci façon boobu ñu tàmbale ko nag ci ne xeeti xalaat yi dafa bari. dafa am ci xeeti xalaat yu ñuy tuddee utopie utopie mooy xalaat boo xam ne nii léeg-léegi nga man koo jëfee ci ni ngay dund dana jafe waaye nag sa xel dana ko jëlee nga tënk ko sa xel ba lool waaye nag léeg ko ci dund gi moom leneen mu xaw a jafe mooy li ñuy wax yi nga xam ne nii moom la nit di teg ci kanamam tey dox jëm ci donte nag kenn du ca àgg. ndax saa yu ci àggee moom day ànd day mel ni rek li ñuy wax saraab mooy li ngay seet bu na tàngee soo àggee dafay ànd idéal bi nga teg sa kanam am ne lii fa laa dox jëm saa yoo ko jubee moom dafay ànd joxaat xam moo ne ci yi nga xam ne mucc ayib lay doon waaye jafee jëfandikoo lool dafay wéyal ci kaw suuf donte mënuñ ko wéyal nag waaye am na solo lool mooy ndax mooy doon nattukaay yi luñ ko gën a jege sunu kawe di gën a yokk sunu mat di gën a yokk moo tax fexe ba am société boo xam ne nii lépp luy xeeti tooñ ak jeng ak noteel dafay jóge lépp luy xeetu ñàkk a maanu doxalinu maanu dafay jóge waaye ak maanu te sax fa ak dëgg loolu ku nekk xam ne ne càkkutéef la boo xam ne doomu aadama yàq na ko sàkku mu nekk ci kaw suuf boobu ba léegi ñu ci xalaat fu toll nii fu mu toll ñu ngi xalaat naka la ñuy def ba askan bi société bi ñuy dund ñu mën cee am li soxlawoo waaye ñu mën ñoo sàmmal suñuy cëslaay ak suñu nite loolu defe naa ne def la boo xam ne nii nit ñi fi ñu toll di ko sàkku waaye nag mbir mi léeg-léeg dafay gën a yitteel dafay gën a ñor ci yenn saa yi buñ toll ci yenn diggante yi bu mbooloo di dund ba mu yàgg ne gis ne ci biir mbooloo mi ak noteel judd na fi tooñ mi ngi fi jeng mi ngi fi jalgati àq mi ngi fi nappaaji dignité te lépp di sosoon ci doxinu doomu aadama mënta ñàkk nit su xoolee xool xam ne bii mënuma ci dara waaye neexuma nag waaye moom am na sañ-sañ ci biir xelam mu tabax ci xeet woo xam ne mel na mbëgg moom di ko jund donte nag ci wàllu xalaat rek la koy teg waaye dana ko may moom mu xaw a sori tuuti tool ak jargat yi nga xam moo ne ci biir mbooloo nga xam ne nii ci lay loolu bu ñu xoolee diine yëpp surtout rawatina na yi nga xam ne nii suñu borom moo ko wàcc ci asamaan yëpp booy xool na ko tax a jóg mooy teg nit ñi ci yoon woo xam ne nii buñ ca jaaree danañ mën a am askan wu royteefu wu kawe lu jege lool maanaam ñoo société bi nga xam ne nii moom la ñuy waxtaan waaye bi xool yàlla ni mu bindi nit dafay mel ni nit suñu borom daa bëgg mu kawe lool waaye moom fu mu toll daa mel ne day dox di jëm ci ñu ko gën a suufeel loolu moom doomu aadama dafa mel ni suñu borom ko moo ñaale lu mel noonu moo tax saa yu demee ba àgg jafe na fi ne àgg nañ ci njoboxtanul gannaaw dellu bu gaaw lool naa ne ku fan yii ci gannaaw mën naa am doomu aadama jàppoon na ne àgg na ci civilisation foo xam ne nii yu bëree bëri dootuñ ko fa gis jàppoon nañ ne tiim aw xeet di leen alak di leen faagaagal jàppoon nañ ne boddugante ci biir xeet dana jeex ci biir adduna bi waaye demoon tuuti gisaat ne ñoo ngi ci vingt et unième siècle waaye loolu dafa mel ne judduwaat na ay nit ñoo xam jël nañ ji faagaagal aw xeetu mën fas yéenee raafal ci kaw suuf li ñuy wax discrimination raciale gën a siiw ci biir mbooloo te ñëpp di ko gis te day mel ne kenn yëngalul sa conscience ci lay xew ci adduna bi loolu tegtal la ci ne kon nit dafay mel ne léegi suñu borom day bëgg mu kawe waaye ñun ñooy detteel suñu bopp lislaam ku nekk xam ne ni bi muy ñëw mu ngi wàcceel ci askan woo xam ne ne dañu leen tuddee askan wu réer maanaam arab yi jamono yooyu alxasru jaahili yi lañ ko doon tuddee kenn ne xam ne ne réer googu nag tekkiwul réer bu ñàkk man a jàng ak ñàkk a mën a bind ndax li ñu jàng ci arab lu bëree bëri jamono yooyu ci lañ ko bind waaye réer gi li muy tekki foofu mooy réer ci wàllu cëslaay réer ci wàllu doxalin wu tegu ci ak nite moo dox yonent bi maanaam warteefam lépp moo doon fexe ba delloo si nit ñi ci jikko yu baax yi moo tax mu daan wax ne dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu baax yi lislaam li mu mel diine ko jiituwoon muy yahudiya di masihiya ñoom ñëpp noonu la doon doxe te bu ñu xoolee diine yëpp li leen fi jiitu muy civilisation orientale mu mel ne indien yi ak perse yi ak chinois yi ñoom nga xam ñoo njëkk a tabax xeetu xalaat yooyu ñoom it daanañ dox ci lu mel noonu seen yitte moo doon laabal suuf si ci ak tooñ ak jeng laabal suuf si jikko yu bari moo doon seen yitte ñoom xeetu nit nitu penk yooyu yu yàgg yooyu ak boom nañ ci ñoom gis ne volonté bi ne ci nit te mooy bëgg a dund moom la fexe ba rey ko ci nit ki bu ko reyee rek day mel ne lépp dana baax ndax baraa na koo gis muy tooñ boo ko laajoon la tax muy tooñ dëgg-dëgg bëgg dund rek la nit dana jiblante nit ba mu yàgg mu jël paaka jam ko foqar ci alal jëm yoroon boo ko gisee ba ci biir bëgg dund moo tax mu def lool ñu ne nag bu ñu fexee ba bëgg bëgg dund boobu ñu rey ko ci nit ñi maanaam tool yu ba ñu yëwit kaw suuf ñoom xalaat yooyu sori woon ci lool bañ fa jógee di wàcc ñëw ci grec yi grec yi itam ku nekk xam ne tabax nañ bu mag tënk ko ci wàllum philosophie ak xalaat yi ñoom it xalaatoon nañ ni ñuy fexee ba askan wi daal tooñ géeg jénge géeg nappaaji yi fi nekk ñu ngi mën a fexee bañ jóge fi ku ñuy wax Aflaatoon daal di taarif benn te ak ko ak jumhuriya ñu wax la république muy tabax yéen tëgg askan woo xam ne nii lépp luy xeeti mat lépp luy xeeti màndu dafay dox ba mu ko tabaxee ba noppi nag mu ne askan wii ma tabax jàpp naa ne balañ caa mën a àgg dañuy fexe ba ñëpp nekk ay xalaatkat yu mag ñëpp ñëpp nekk ay philosophe waaye mu ne gis naa ne ñëpp nekk philosophe mënut a nekk mu ne kon lu may def mu ne mooy nañ fexe ba ñu nekk ay xalaatkat yu mag jiite mbooloo mi ndax ñoom dem nañ ba gis dëgg. xam lu baax xamee lu bon kon bu nekkee ci kanam mbooloo mi daañu leen wommat jëme ci yoon wa nga xam ne ni ci la war a jaar fexe ba kon ak maandu jëmm ci kaw suuf ku ñu wax Qudis Augustinos chrétien la woon bu mag ci chrétien yu mag yi moom itam lu mel noonu defoon na ko defoon ab dëkk boo xam ne ni day xalaat lu ñu mën a fexe ba tool boobu jéggi kaw suuf mu tuddee ko madinatullah mooy dëkkub yàlla la kee waxoon rek lu mel noonu dafay wax moom it lu mel noonu moo taxoon def ko ku ñu wax faaraa bi moom itam toogoon na ba gis jeng gi ne ci biir dundinu askan wi tooñ geeg yu mel noonu mu ne moom it naa xalaat dëkk bu mel noonu daal koy xalaat ci xelam tudd ko almadinatul faadila muy dëkk boo xam ne nii moom it nam ko misaale lépp luy xeet tooñ ak lépp luy xeetu jalgati dafay jóge noonu la ko tuddee ñu koy gis muy dox ci mu ne ñooña dëkk booba lañ leen di ràññee dëgg-dëgg mooy nit ñu losu la doon nit ñu bëgg lu baax tam la ñuy doon nit li ñu doon ñoo xam kon dañuy nangoo séddoo seen biir li war téef yi war seen biir ku nekk taxawaay bi nga war a taxaw ñu jox la ko ba noppi nga taxaw ca taxawaay ba nga ci war a taxaw mu ne loola bokk na ci mandarga yi dëkk boobu mu nga xam ne moom la doon mu fa jógee gis na ko yox Ibnu Baaja Ibnu Baaja xalaatam mi ngi ko tënkoon ci leneen gis nit ñoo xam dañuy dund ci biir mbooloo moo xam ne nii mbooloo mi jubari dafaa bari lool waaye ñoom seen borom baaxee la ñu jub lool mu ne ñooñu nu ñu war a def mu ne ñooñu dañ naan safeet dem ba génn mbooloo mi ber fa seen dëkk di dund seen mbaax googu ñu bëgg a dund loolu moo waral ku mel ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ba mu gisee ne yàqute gi bari na mu ne safeet dem ci àll sanc ko ngir mën faa dund mbaaxam googu nga xam ne ni moom da bëggoon yooyu ne boo ci yekkee xeetu xalaatin socialisme yi nga xam yépp xalaat utopique lay doon nga xam ne ne dañ ci doon xalaat nu ñuy fexee ba nit dootu exploité nit ci kaw suuf loolu lépp ay càkkutéef la woon yoo xam nit yàgg na koo dox ngir tabax askan woo xam ne nii askan wu idéal lay doon jéem gi du fi jóg ba mukk saa yi nit demee ba gis leen mbooloo mu ngi dund tooñ bari na fi lépp bante mënu ci dara dana tabax ci biir xelam askan woo xam dana mel nan bëgg donte da koy dund ci biiram waaye du ko mën a réaliser ci kaw suuf ñu gis nag ne jamono ji ñu toll nii boo xoolee adduna yëpp ni muy tëddee gis li fi nekk ci tooñ ak jalgati ak jalgati ak ak fokkar ci ak alal doomu aadama yi da ngay gis ne soxla nañ. yoon yu ñuy jaar ba mën a génn ci coono yi ak problème sociaux yi nga xam ne ni ñu ngi koy dund ñu ne ci àdduna boo xam ne nii ku ëpp doole sa morom lekk ku ëpp man ko ko ku ëpp doole def ko matériel di ko jëfandikoo ñu nekk ci àdduna boo xam ne nii loi bi koy atte dafay mel ne loi bay atte njaay àll yi ak mbaam àll yi ca àll bi ñu ne ci àdduna boo xam ne li ñuy wax mondialisation boo xam ne lépp luy ay valeur spirituelle daf ko fas yéenee nappaaje waaye itam yóbbu ñu ci matérialisme gu jéggi daw boo xam ne ni lépp muy wàllu liggéey bu biir dañ ko fiy jële kon xëy na tomb bu mel nii bu ñu ko tànneen war koo waxtaane lim ñuy mën a jural rek mooy ñu jéem ubbi ay bunt yu bees ñeel nag mboolem doomu aadama ci kaw suuf waaye rawat na sunu réew di Sénégal ñu ubbi leen bunt yoo xam ne nii xëy na buñ ci sukkandikoo mën nañu tabax mbooloo wala boo xeet wala askan wala société boo xam ne nii bu àgg nag ci nekk société idéale waaye nag lañ bëgg sa pax lu ci wàllu société ba mu tegu ci yoon mën na ca am bu ko defee xëy ne kon li ñuy tënk dafay jëm ci critères yi nga xam ne nii war naa nekk ci mbooloo ñu door ko tuddee société idéale su ñu noppee nag xool sëriñ bi ci boppam moom mbooloo mi tabaxoon dañ ko mën ko tuddee mu tabax misaal yi te mooy mooy société idéale boobu naka la ko tabaxee woon ak naka la meloon su ko defee nag door a wàcc suñu kàddu ci jotaay bi dañu gis bu ñu bëggee xalaat lan mooy société idéale am na ay laaj yoo xam ne boo ci tontoo façon tontu ba nga koy tontu moo lay jox façon mbooloo ni nga xam ne moom nga bëgg ci misaal tey war nañoo laaj li ñuy wax tarkibatul ijtimaa yi maanaam composition sociale bi naka la mel ci biir askan wi ndax dañoo nekk ay nit ñu séddale ko ay caste wala nekk ñoo xam ne ñëpp a yem wala ñii dañoo féete kaw ñuy féete suuf ñii nekk ci suuf a suuf loolu bu ñu ko xoolee mën nañ cee jànge ba xam askan wi askan wu idéal la wala déet. ndax ni ñu séddalee rôle yi ku nekk lay sa cër ndax jox nañ la ko ak ñañ ko jox ndax nañ cay taxaw nañ ca war a taxal dëkkandoo yi yan relation lañ seen biir ndax dañoo soxorante ndax dañuy dimbalante ndax dañuy nangam ak li ñuy wax institution yi nga xam moo lànk mbooloo mi di leen ak di leen doxal yooyu nañ lañ mel ndax ñu ngi dox ci dëgg wala ñu dox ci jàng wala naka la ñuy doxale système économique ba fa nekk ci lan la sukkandiku ndax ci am bokk la sukkandiku wala bopp sa bopp ci la sukkandiku yooyu man nañ ko see natt njàng ma fa nekk ban qualité la ban niveau la ña ñuy génnee ña ñuy formé na mel bu ñu génnee mën nañ ko cee xam li ñuy wax service yi nga xam ni daf koy soxla fu mu toll ci yi nam ndax mat na fa wala matu fa li ñuy wax bunya tahtiya te mooy infrastructure yi ndax mat na fa wala matu fa système bii gouverner dëkk bi naka la mel. ndax système la boo xam ne day dox ci démocratie ndax système la boo xam dafay dox ci maatay wala dafay dox ci ndawte wala yu mel noonu yooyu buñ ci tontoo kenn lañ ciy tontoo nag na askan wa mel ci la ñuy natte ba xam askan wu jege na société idéale wala daf ko sori wala dafa digg doom wala fu mu ko toll bu ñu ci sëñ bi nag ci jéem xool laaj yooyu ñu laaj leen yan tontu nag sëñ bi bañ mën a jàngat société bi nga xam ne suñu tabaxoon naka lay nekkee societé bu idéale bu ñu xoolee askan wi nga xam ne ni moom la sëñ bi tabaxoon nature doomu aadama yi ci doon dund seen nature dëgg-dëgg naka la meloon loolu bu ñu ko bëggee xool dañuy dellu ci xasiidatu qalbuka moo ñuy wan ñu sëñ bi tabaxoon yan melokaan moo ne woon ci ñoom te loolu dañ ci ñëwaat ci kanam tuuti bu ñu bëggee xool nag infrastructure yi nga xam ne nii mooy tax nga mën a tabax mbooloo li nga bëgg nga xam ngeen ne askan woo gis def nañu buñ ya taxte mooy infrastructure yi am buñ ya foox yi mooy superstructure nga xam ne buñ la tax te mooy li ñuy mën a sukkandiku bay doxal buñ nga fooxee mooy jikko yeeg xalaat yeeg pas-pas yeeg yu mel noonu mooy superstructure yi loolu da ciy feeñ bu ñu xoolee sëñ bi nag buñ nga tax te mooy infrastructure bi mu indi moom la ñuy déggee ci Matlabul Fawzayni kon ñaari xasida yooyu xasida Qalbuka xasida Matlabul Fawzayni ci la ñu fas yéenee sukkandiku ngir wane société murit bu idéal bi nga xam ne nii moom la sëñ bi taxoon la dañ koy jéem a rek. ci lu wuute ci dañ koo gisee ci taxawaayu sëriñ bu ñëwee ci bu ñu la taxatee te mooy infrastructure bi ci société murit la ko la sëñ bi tabaxewoon boobu ñu ngi koy jëlee ci xasidat mën na bu foo sëy bu waxee léegi xasidat mën na bu foo sëy lu bari ci taalibe yi dañ jàpp ne xasida ñaan rek la dëgg la manis na koo ñaane waaye nag ay mbir la yoo xam ne nii ñun war a jëmmal la ñenn ñi dañuy jàpp ne léeg-léeg ñun sëñ bi lu ñaan daa fekk moom ba noppi loolu def naa ne xel sax war koo mën nangu ndax sëñ bi amul jot bu toll ne toog loo xam ne nii am na ko mën a ko taal seen loxo borom di ko ñaan loolu ñun ñi am kii sax duñu ko def waxuma la na keneen kon li forme ñaan bi sëñ bi jëfandikoo ci mat la bu foo sëy ni lañ ca war a déggee mooy nit buy ñaan li nga bëgg mu nekk te nekk gu moom ngay ñaan na nga bëgg mu nekkee ne noonu nga koy ñaane kon sëñ bi gis na ne askan wi mu bëgg tabax maanaam infrastructure yi mu soxla pour tabax ko mënta ñàkk moo tax mu def ko ci Matlabul Fawzayni def ko ci forme ñaan pour sunu borom dimbali ko ci ndax bindikat yi dañuy wax ne nit buy sonn te àndutoon ndimbalul yàlla buy rëcc lu muy njëkk rëcc mooy coono ba mu doon sonn moo tax ñaan foofu lañ koy dégg waaye ne bu kenn jàpp ne day loo xam dafa am ba noppi kenn bu ko defee sëñ door ko ñaan loolu amul maanaa lool kon dafay mel ne sëñ bi ni mu bëgg mbooloo mel ni wala boog fi mu bëgg a tabax mbooloo mi loolu la indi ci Matlabul Fawzayni taalibe bu nekk nag bàyyi xel ci kon la koy jëmmal sa wàll mi ngi ci biir moo tax bu ñu xoolee buñ la taxtee boobu infrastructure yooyu dañu gis ne ci Matlaboul Fawzayni sëñ bi dana wax ci mbirum njàng mi ku nekk xam ne kuy tabax mbooloo askan koy tabax ku nekk jàng munu faa ñàkk da nga gis mu wax ci njàng mi jaamu yàlla ci dégginu yaatu wi ni ko Sëñ Modou Fadil doon jàngalee ci dégginu yaatu wi mënta ñàkk ci mbooloo mi ngir ñu am mi tama société bu idéal te jaamu yàlla mooy tax. nga mën a jëflante mbooloo mi ci jëflante bu baax danañ ko gis tam ci ndox ku nekk xam ne doomu aadama mën da tabax mbooloo te amul ndox da nga gis sëñ bi dana jëfandikoo baatu ndox ci biir xasidatu mën na ba foo seen barabu liggéeyukaay mooy irtisaax moom it dañ ko gis ci mën na ba foo seen sëñ bi di ko ñaan wane ne na am barab yu liggéeyukaay koo xam ne nii ku bëgg a fàggu lew da nga ko fa mën a fàggoo waaye sécurité ku nekk xam ne ne mu tàng ba amul sécurité mën nga wax société idéale ba amul sécurité amul boobu da gis ne sëñ bi dana ko wax te a dama foo sëy ni ndax sécurité mooy tax nit ñi mën a dund ci jàmm ak salaam ku nekk am kóolute am yëg-yëg ci ne kenn du jalgati saa yooyu nag bu ñu tuddee bayit yi ma bëgg a tudd bu ci nekk dafay firndeel noonu bu ñëwee ci wàllu njàng mi ni ko sëñ bi bëggoon dane watal binaa iya binaa ilmin wa amalin bi sunnati wa xilmi wajalu daban maskana taallumi wa mawdian fikrat wa tafahum loolu dafay tegtal ne kon wane ne société bi muy tabax infrastructure bi mu soxla dëgg-dëgg mooy barab bi jàngukaay waaye nag barab bi jàngukaay lay doon yoo xam ne nii dana wuuteeg suñu barab bi jàngukaay yi mooy jàng boo xam ne nii da ngay am xel du jàng lu lay sor rek nga ko di ko répété fa toll waaye da lay jox nga mën a xalaat amul dégg faham mooy li ngay jàng am ci compréhension boo xam ne nii da nga dem ba mën ci génne lu bare bare loolu la sëñ ñaan kon du njàng mu ñuy tari rek waaye njàng bu am qualité moom la sëñ bi wax. daal ne wa maskana al irshadi wa tahlim wa maskana al taswib wa tafhim mu nekk tam barab boo xam ne ni ñi jàng ba noppi dañuy orienté nit ñi di leen teg ci yoon bu ñu jàng ba noppi rek dem toog te njobaxtan la di exploité yi ci des waaye dañuy orienté nit ñi di leen teg ci yoon di leen jubbanti di leen def ñuy jég kon nga gis ne barab bi jàngukaay sëñ bi teel naa wax ne il faut que ñu saxal ko moo tax bu mu sancee tubaat ku nekk xam na ne defoon na fi daara yi mel noonu fu ñu mën a sàkkoo xam-xam bu ñëwee ci wàllu li tax nit ñi mën a dund muy ndox da ngay gis mu war ko ci a alal ahli bi maa in jaarib nee na askan wi nañ fexe ba ñu am ndox moo xam ne nii daw lay doon moo xam ne nii ndox muy daw ku ne xam ndox bu toogee benn place dootu baax mooy nañu am ndox moo xam ne nii day daw di yoon mooy ndox mi day mel na man a mel mooy tax nit ñi mën a dund mën a liggéey bu dee ci wàllu koom-koom mu ne wa kasiran xayraati hadal balad ñaanul mbay ñaanul industrie ñaanul commerce waaye xayraat rek la wax ne ko nanga ko bari xayraat nag commerce nañ ci biir lépp day tax nit mën a am fàggu lu lew lu mu mën a fege boppam rek mën naa dugg ci biir loola mu ne wa kasiran xayraati hadal balad wa risqahu wërsëg bi na ko yokk nit ñi bu am wërsëg wax dëgg yàlla dund gi du mën a sotti daal ne nag nañ ko fegal lépp li xeeti nax nax nag nañ ko fegal kon nga gis ne barabi liggéeyukaay sëñ bi gën xam wax xamal nañu ne mënta ñàkk ci biir mbooloo mi ngir société idéal boobu mën a am nga gis noonu bu mu sancee ñeenti daar yam fi defoon jenn daara ji barabul liggéeyukaay la ko defoon ñi nga xam ñooy liggéey ñenn ñuy jàngale ñii di liggéey te loolu xëy na dañ ñëwaat ci kanam bu ñëwee ci wàllu sécurité moom ñu gis ne nit ñi bu ñu amee li mën a dundee di nañ ba noppi waaye amuñu kaaraange amul sécurité bu ñu mën a dund ci jàmm mu ne wamaskani sàmm mën na fa jaar saay saay si sàcc yeeg agresseur yeeg yëpp mu ne nañ leen génne ci dëkk bi loolu tam beneen liggéey la daan ne wala tasrifan jumlata ma yufsidu an yadi wa an daari hay soxam lépp loo xam ne nii dafay yàq nañ ko dund sama loxo génn ko sama kër dégg nga mbooloo mi nga gis ne kon ñaan na wàllum sécurité boo gisee kon lii tax ñu mën a tabax askan wi sëñ bi wax na ko ñu mën a bul foo seeni te boo delloo sax ci tarjuma ji tarjumaan ji wala tarjuma ji lay taayee da ngay gis aaya alxuraan yi ci jëfandikoo yëpp dafay joxewaat maanaa yu mel ni ñu waxtaane kon xasiidatu Matlabul Fawzayni mooy infrastructure yi nga xam ne nii ci la sëñ bi fas yéenee tabax askan wi ci Touba ñun ñun tabaxoon ci Touba. bu ñu tegee nag bu ñu taxtee bu pare te mooy infrastructure bu ñu ko tegee pare la dooree ñëw ci superstructure bi mooy wàllu jikko yi wàllu pas-pas yi wàllu comportement yi wala boog mooy melokaan yi nga xam ne ni war nañ koo gis ci biir mbooloo murit mu nekk ñun ñu mën koy tuddee société idéale boobu ñu ngi koy jëlee ci xasiidatu xoqal bukaa xoqal bukaa ci gëstu lu mu may mooy suñ mu ko taalif gannaaw man na bu faw seen la ko taalif ci ramadan 1311 dëppoog mars 1894 la ko taalif fii ci Touba noonu la ko tuddee ci meneen baaxi xadim ci xasida googu ci la sëñ bi leeralee nit ku doy moom ki mu ba nopp moo tax bu ñu ko meneen baaxi xadim sëriñ Bassir dafa lu am solo dafa def analyse boppam te loolu nag lu am solo la ci borom xam-xam mooy nga def sa analyse bopp am loo dégg loo xam ne nii mën naa am sax ki bindee ko mu ne def na analyse boppam. li ko jox mooy ne sëñ bi mag ñi ñuy nekk li ci xol bu kaa moom nee na gis na ne mooy mag ñi sëñ bi doon defar nekkoon ak ñoom Tuubaa nee na ji melokaani mag ñooñee moom la moom lay nekk li ci xol bu kaa loolu suñu Basiru moo ko wax daa ci nag naka naka leen doon yare ak positif bu mu doon def ci ñoom lim ci tànn moo ëpp solo mu ne lii ma wax nag sëñ bi ci boppam waxuma ko waaye maa ko jàngate ci jàngat bu ma jàngat. melokaanu sëñ bi ak comme ak ak i jikkoon ak doxalin bu mu doxal ak magi taalibe yi nga xam ne nii ñoom la nekkaloon leneen nag ma jële ko nag ci barab yi tasaaroo tënk ko gis nañ boobu sëñ bi si lañ ko jële moo tax ñu jàppale kon société idéal bi sëñ bi tabaxoon te bu ñu taxtee bi nekk man la foo sëy ni bu ñu faw koy bi moom mooy man ñoo ñi nga xam ne seen i melokaan danañ ci tudd tuuti ñooñu bu ñu demee kon dañuy gis ne lañ fay njëkk a seetlu mooy sëñ bi def ne ñoo ne charia mutahara mooy sariya bu dara ko di bu leer nañ moo leen di atte wa min lawazimiha wa min lawazim minhajuha abadan wa hiya sariat fi badni waxaayat nee na sariya mooy li ñuy atte woo seen luwaa bi leen tënk bi leen mooy sariya ci commencement ba ci fin bi yëpp ci la ñuy tënk moo tax ci sariya bu boobu ak xaqiqa bu leer nañu boobu ci la sëñ bi defar méthode bu doon yare nit ñi te yar leen ci pëstëf bu kawe pëstéef bu kawe mooy génne nit ci bàyyi ma génne nit ci dundee loo xam ne nii rek moom na ko dundee noonu yóbbu ko ci jikko yu kawe yéege ko ba mu kawe lool ku nekk xam ne nit buy juddu moom bàyyi ma ñoo bokk melokaan xale bu tuuti ak mbotob xar sëree wu ñuy mbir fi nekk nii mbotob xar noo koy xamee mooy bu xiifee dana jooy bu suuree dana nelaw bu yëgee ne am na doole dana bajant wala ne am na doole ab ndiir wala xale bu tuutoon fi ne bu xiifee bu suuree day nelaw bu demee ba yëg na mu ngi commencé ñoom ñu ngi commencé bajant kon ñoo bokk lu ñuy juddoo waaye nag bàyyi la day gën ci mbaay la boobu nit nag dañ koy génn ci mbaay la dugal ko ci nite mu ne nag yoon wi ñuy jaar ba mën a génn ni ci bàyyi la dugal ko ci nite nag mooy sharia mutahara te mooy sharia boo xam ne nii dara du ko kooj kon sharia bu ci la sukkandiku ba tabax mbooloo moo xam ne nii seen yëg-yëg kawe na seen spiritualité tam kawe na lool mooy nit ñoo xam ne nii dara dara moomu loolu ñu dara mooy alal du leen tee def li ñu war a def alal du leen taxam ñàkk a mel ni ñu war a mel waaye itam kenn moomu leen mooy loo bari bari la ak loo mën a mën man mënoo leen a dévier mukk ci objectif yi nga xam ne leen teg seen garab mooy laa yamliku shay wala yamliku shay'un wa aydun shay'un loolu nag moom la doon moom la ko gën a firi ci ah, rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bid dars faqat ñooñu nag bu leen tabaxee ba noppi dafa am ay jikko yoo xam ne nii mbooloo moo ko gis mën ngaa jàpp ne mbooloo mu idéal la leneen nag boo koy wax dañuy jàpp ne amul relation réalité bi ñu dund waaye moom kese kese moo na a jagal réalité bi ñu dund mu ne lañ leen njëkk a xam mooy wa zuhd fii kulli faanin baxdahu warahun maxa tawakkul sabun kulli saawaat mooy ñi mu tabax askan woo dañuy nekk nit ñu dëdd dëdd ci lépp loo xam ne nii day jeex fi mu nekk nii ngir ñu mën a am société idéale il faut que ñoo xam ne adduna bi day jeex ñu gëm ne adduna bi day jeex alal ji ko fi bàyyi. poste yi dañ ko fiy bàyyi yi dañ ko fiy kon lépp lenn bu la ci jaral nga ciy doxe noo xam ne nii doxin wu ñaaw lay doon kon dëgg bi loolu lay tekki lépp loo xam ne nii gëm nga lii day jeex du la yàqal la jox jikko joo xam ne waroo koo am nga teg ci wara warax mooy sàmm sàmm mooy lépp xam ne nii naka su dul noonu la kenn du lu ca seen loolu kon daf ne mbooloo mu am mbooloo mu idéal lay doon tey suñu jafe-jafe yépp mooy nit ñu sàmm nit koo xam ne nii fu mu ñëwee def naka su dul noonu nit koo xam ne fu mu amee doole def naka su dul noonu mooy nit koo xam ne nii sàmmul xeex ak bakkan jihaadu nafs sëñ bi tuddee ko ci wuqaat li fekk mën ñoo xeex ak bakkan ba not suñu bànneex duñ mën a am société idéale ndax bakkan mooy li nga xam ne nii mooy pousse nit di koy defloo ay yenn melokaan ba dell delloo ko ci lu gën a suufee ak mbaayam sukkur bi xadaa ridan tarkul tifaat ila xaali bariyaat mën la koy yàlla atte loolu tamit defe naa ne bokk na ci liy tax ñu mën a am société idéale mooy ñu xam ne loo am am doole du mën a tax mukk nga jot loo xam ne ni yàlla dëggul lan war koo jot loo tam du tee nga jot yàlla dëggal nga war tee jot loolu boo ko xamee da ngay nangu maanaam kon nit yàlla jox nit da ko ko nangu ku ñàkk tam da nga jàpp ne yàlla moo la ñàkk moo la xañ da koy nangu waaye mu tekk lu am solo nag mooy tarkul tifaa ila xaalu bariyaat maanaam tey ñun li ñu solo lépp mooy ku nekk lijjante yoo sa mbirum bopp sa mbirum morom ngay lijjante mu ne nag nit ñi dañoo war a bàyyi mbiru jàmbur yi te jéem a yittewoo seen mbir foo toll di limtu mbiru jàmbur te yow seen mbir dara leeru ci mu ne loolu li fekk mu a société bu idéal loolu lépp da koy toppee nag mu ne koo gis ci ñi tam sayxun aalimun warixun koo gis ñoom kilifa la boroom xam-xam la ku sàmm koo gis ñoom kullun xabiirun bi adwaa il qulubi naan feebar yi na ci xol. ku nekk ci ñoom defar na la ba nga xam ko ba du la dal ku ne xam ne feebari xol yi moo gën a garaaw fuuf feebar yaram ku ci feebar sa yaram feebar da nga dem faju ko waaye bari nañ ci ñun ñoo xam seeni xol dafa feebar te fajuwuñ ko soxor ki naan rëy gis sa bopp njistal feebari xol la yoo xam ne nii mën a ci yow nekk nit moo tax mu ne sëñ bi ñoom lii leen moom ku mën cheikhun aalimun warihun noonu la ko ku mën xadirun bi adwaay ku nekk ci ñoom ku mën karimun taqiyun zéhudan wa saxan ku nekk ñoom ku ku ku karim karim mooy koo xam ne nii ku mën def lu baax la doon ku tedd nga maanaam ku généreux nga doon koo xam da ngeen a jox ragal fegu ragal yàlla bokk na ci li tax ñu mën a am société bu idéal ndax am loo xam ne nii boo ragalee yàlla doo ko def mukk ragal yàlla rek mooy tax nit nga jox ko kees mu mën koo këppoo te du ko këppoo mooy tax nga jox nit alal dénk ko mu xiif mar sonn mënoon cee jëfandikoo te bu ko laal ndax gëm na ne bu ko laalee ëllëg la ko ciy fekk mooroo la ko ciy fekk tey hagada yam di nasihata tey itam dañuy nangoo conseillante suñu biir ku nekk li nga gis ne bu ko sa morom defee mu baax bu ko soxoree wax nga wax ko ko ndax mën caa jaar mu baax noonu la koy topp itam ci ci ci ci xuqa muy bëyit yu baree bari yoo xam ne ni bu ci nekk mën nañ cee gëstu ne mbooloo moom ñoom noonu lañ meloon kon su fekkoon ne bëgg nañoo tënk société ideal bi nga xam ne nii sëñ bi tabaxoon na ko te sukkandiku ko ci xasida mën na bul fay seen ak xasida Alboukaan mën nañ ko tënk ci yii bi nga bi njëkk mooy askan wu wu organisé wu leen léeg-léeg da ngay dégg ñu naan murid di organisé wu loolu ko xamul murid rek moo ko wax waaye sëñ bi nit mënu koo nos ci àdduna xam àdduna moo tax mu nos ko man ñu nekkaloon ñëpp ku nekk dalaa laa joxoon looy def kii day jàngale kii day kii day taxale kii day bay kii day rondaay kii day bale ku nekk la ngay def te ku nekk la ngay def jàpp na ne ci la sa te def sa pajug aajo nekk loolu organisation moo ko moom sëñ organisation moo ko mooy ñu dajale man ñu bëree bay ñoom ay kàngam lañ te ku ci nekk mën naa benn barab te kenn du xuloo kenn du xeex loolu nosu moo ko mayoon moo tax boo xoolee yoonu murit ni ko sëñ bi nose forme pyramide la ko jox forme pyramide mooy li ñuy wax cases carré yi ñoom ne case néegu ñax case carré murit case murit forme boobu mu amee ci la sëñ bi tabax yoonu murit mooy suuf gi day yaatu loo gën di ñëw ci kaw day gën di sew waaye la yam moo tax yoonu mooy sëriñ Tuubaa moom dong mooy sëriñ ñi ci ñëpp ay jëwriñ lañ jëwriñ lañ doo bi ak put bi moo tax sëñ bi léegi ñoo xam ba ngay gis bu kenn sàggane forme bi am moom la forme yoonu murid mu ne yoonu murid base bi yaatu na lool waaye nag jëwriñ yi dañuy gën di sew mbooloo mu nekk am nañ jëwriñ jëwriñ nekk ci jëwriñ ju mag jot moom rek moom mooy sëriñ bi moom la ñuy dellu noonu la ko nosal ba nga xam ne tey bu masaan soxla dara moom ci boppam du toog ko fas du yorub rajo jëwriñ la koy wax rek mu daal di wàcc maanaam lu waa maanaam ndigal li day jóge ci daal di wàcc ci baas bi ñu koy jëfee lépp daal di so faju système bu efficace la boo ne nii ci tabaxoon yoonu murid léegi nag ñu ngi ko commencé ku nekk dafaa jël sa bopp daal koy attaché directement ci xalifa bi nga xam ne mu jëllaw jëllaw jëf yëpp loolu ne li ci xaw ku nekk am nga jëriñ bu ku nekk yemal sa jëriñ rek liggéey bépp day jaar ti te benn maanaam jalaw jalaw du am ci kër kilifa yi loolu am na ñoo xam ne nii xamuñu woon sax sëñ bi ñoom seen jëriñ rek lañ xam daañu ci nett ne koo xam ne nii da doon dem ci sëriñam jël ay addiyaam takk ko romb njaareem ñu ne ko sëñ bi de li mu ne mën nga romb njaareem te ñu sëñ waaye tam addi yi mu takk moom fas ko yóbbu sëriñam moom mënu koo laal te àggul ci sëriñam xool xool xam mu def mu ne kon naa wër kër gi ñetti yoon daal di wër kër gi ñetti yoon jox ko addiyee yi gën a dem melam noonu la sëñ bi nosi woon yoon yi jëwri yi amoon wàccuwaay koo delloo nag na jëwriñ doole jooju ngir yëf yi gën a mën a nos liggéey gën a mën a tegu ci yoon noonu la sëñ bi nosi woon murid yi mu nekkoon tam société boo xam ne nii yàlla boobu lañ fa doon jaamu buñ fa jaamu nit buñ fa jaamu alal buñ fa jaamu pouvoir te teg ko ci nag sariya bu leer nañ ak xaqiqa bu am bu set ci noonu tam lañ koy gis ci euh, ni sëñ bi tabaxoon mag ñi mag ñi kenn rëyu doon seen kanam loolu ak poste boo mën di yore boo taxawee seen kanam gisuñu la seen rek gis moo tax ñu daan jàkkaarloog buur yi di leen wax leen di wax jàkkaarloog tubaab yi mën leen wax li leen wax di ñu am benn ci ñoom loola mooy ne suñu bi defoon nag ñoom ne ñoom yàlla dong mooy ki màgg yàlla dong mooy ki rëy keneen ku mën nag lu mu réy rek ak lu mu kawe kawe nit rek lay mën a doon bu ko defee nga mën a jëfante moom ci kaadaru doomu aadama loolu dañu gis ne sëñ bi dañ ko seetlu ci ne sëñ bi tabaxoon euh, njaboot bu njëkk bi gis nañ ne tam tabaxoon na ko ci dimbalante ak mottalante mu murid seen boole mooy jàppalante ak dimbalante sëñ bi wax na ne bi ñuy tabax jumaa Tuubaa bi ñu ñaar fukki juróom ba pare bi mu dajalee mboolem dañ leen dama leen am na ngeen bëgg a leeral li tax ma def damaa bëgg ëllëgee bu ngeen soxlaat bu ngeen mën a soxlaat ci àdduna bi ngeen jaar fii ba fajtal ko bu ngeen defee lépp dana jag dana jag waaye nag boo ngi deful ku leen wër te sañal dana leen sañal ndax ku leen wër te mënal dana leen mënal ku la mën a sañal mooy nag ki lay sañal yàlla fekk mu doon ci la war a sañal kon solidarité boobu sëñ bi defoon ci yoon yi moom defe naa ne bu ñu ko doon doxal benn murid bu tumurànke kon benn murid tumurànke ndax nekk ci alal moom suñu loxo moom xaju ci soxla murid yi xanaa kay kon léegi leneen moo waaye alal ji barke beeg yëf yi la ci loxo yi yoonu murid moo ëpp soxla murid yi kon bu am murid tumurànke rek am na moroom murid mu defut la mu war def kon côté solidarité boobu sëñ bi defoon moo taxoon mu mbooloo mu nekk benn di yëkkateeloo di tegaloo ni ñu ko faral di waxe mu doon société boo xam ne dañu gënoon production sëñ bi li ko wutaleeg yeneen mu tasawuf yi mooy ña ko jiitu woon te sooboon gi dem tasawuf ñëpp ci ñoom ci sarax lañ daan dund maanaam dañ daan lekk ba desal jox leen sol ba mbàpp nga jox leen ñoom ci lañ daan dund mooy ñoom daan ahlu sufa nee am ku leen masa romb ci mag ñi ne leen ñii ñoom ñaa ñoom ñoo dañoo ñoo ñi nga xam ne ni nee nañ daal ñoom jaamu yàlla rek lañ def ñu seen liggéey mu ne waa ñii ku leen di dundal mu ne ko ñun ñoo leen di dundal mu ne kon di yéen ñëpp leen gën kon nit dafa war a sukkandiku ci boppam di dundal boppam sëñ bi loolu teel na ko jàngal mag ñi yar leen ci da nga daan gis koo xam ne nii day naafila ñaari rakka alxuraan ci maanaam alxuraan yëpp def ñaari rakka ci guddi te bu xëyee dem tool man la ci tool yi gis ki naafila téeméeri rakka te bu xëyee dem tool man la ci tool yi gis koo xam ne bu ngeen demee ci wàllu jaamu yàlla moo la ci man fuuf te bu ngeen demee ci tool yi mën la ci foofu maanaam société boobu la sëñ bi tabaxoon tabaxutoon société damay toog damay toog muy dox loolu moom leeral na fi ñëw waaye suñ li dox mooy mag moo xam ne dafay jaamu yàlla di liggéey gën ñooñu tam yow autosuffisance mooy ñu fexe ba suñuy soxla ñu koy fajal suñu bopp lépp luñ soxla ñu koy mën a defal suñu bopp suñu biir loolu itam defe naa ne lu mat a xalaat kon bu ñu bëggoon tënk melokaan yëpp mën nañ koy ci seeti idéal bi nga xam ne ni sëñ bi tabaxoon na kon nag lii la li ñu jàngat mën na bu foo seen xuqal kaa ak yeneen yi nga xam ne nii mën nañ cee dellu kon sëñ bi ñii la ko tabaxoon théoriquement la ko tabaxoon ni ba noppi nag jëmmal ko ci mag ñooñu bàyyi fi yeneen mag yoo xam jëmmal nañ ko biir ku mel ne si amoon fadil bi ñu fàttaliku ak mbokkam mu baax ni suñu ratibus ak ñu meloon na ñoom jëmmal nañ doxalin bu mel noonu waaye nag waxoon nañ léegi ne société idéale ci dégg ni moom neewaa na muy réaliser wu ci kaw suuf ma waaye daal mooy nattukaay bi nga xam ne nii mënu ko gën a jege mu gën a baax donte àgg ci man dana jafe lool lool man yi sëñ bi nekkaloon nag jege woon nañ ko lool lool donte mënuñu wax nañ ci waaye jege woon nañ ko lool lool moo tax ñun fu mu toll nag dañuy soxla woon principe yooyu sëñ bi tabaxoon société boobu ñu koy fàttali nit yi di ko beesalaat di leen xamalaat fi sëñ bi jaaroon ba tabax mbooloo moomee ngir ñun ñi ci toll itam wala boobu ñi ci toll man cee jaar ngir tabaxaat. askan wu mel noonu defe naa ne loolu moo doon jubluwaay bi ci exposé bi nga xam ne nii moom la ñuy def xëy na kon fi ñu wàccee suñu kàddu daal mooy ñu xàmmee ñetti mbir na ñu xàmmee li war a nekk na ñu xàmmee li mën a nekk ak li nekk ñetti yooyu nañ koy xàmmee moo ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Serigne Fatou waxtaan bi am na solo lool ñu ngi ko leerale yaakaar naa du aajowoo ñu koy toftal yeneen kàddu ndax li nga wax rek yoonu murid moom. képp koy wër ñu war a roy ci wàllu maanaam société ku xool seen doxalin rek di ko ci xam bu kon mbokk yi ñu fàttali ne sëriñ bi tënk na lépp kon dañuy delloo ñëpp rek ku bëgg a xam dëgg-dëgg lan mooy euh, société bu am solo ci Touba na delluwaat ci ñaari xasida yi nga xam ne moom la junj muy xuqal bu kaaw ak matlabul fawsayni ndax dégg na ci ne ñaari xasida yooyu téye ko di jàng rek amul solo waaye ci am solo mooy nga koy jàng ba pare nga xam ne ki sëñ bi wax kon ñu ngi jégalu baax baax di sant suñu fal di sant bu baax baax di sant ñëpp wa nasalullaha an yaj'alna min lazina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsanahu wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Serigne Fallou Bousso Hassane ci waxtaan wu am solo wi waxtaan kawe jot bi nga xam ne ñëpp mën nañ cee jariñu kilifa mën na cee jariñu ku yilif mën na cee jariñu waaye jërëjëf sëñ Baara ci modération bu am solo bi nga xam ne modéré nga ko jataay bi kon dañuy daal di jàll rek ci li nga xam ne moom moo des ci waxtaan wi mu fàttali ne sëriñ Cheikh mu sëriñ Abdul Karim mi ngi ci jataay bi sëñ Baye Ndam Fall ngi ci jataay bi waaye sëriñ Saliou mu sëriñ Modou Bousso Dieng mi ci jataay bi ak yeneen kilifa euh, li may wax léegi délégation yi booba dama leen ton eh, kon dañuy daal di jox sëriñ eh, Saam Bousso moom sëñ Abdul Wadud mu andi xasida koo xam ne da koy dalale sunu gan yu tedd yi kon sëriñ Saam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant bu baax a baax suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew di leen nuyu te di leen tatagal di sant bu baax it sëñ bi ci waxtaan lu am solo wi xam naa duñ guddal dañuy jéem a jàng xasida gu gàtt rek koo xam ne xam naa ci fukki bayit rek lay toll Euh, dañ koo jéemoon rek ngir dalal ci suñ kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fekk si woon bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi dhil ifdali walkarami ثم الصلاة على المفضال ذي الحكم الحمد لله ذي الإفضال والكرم ثم muhammadin xayri xalqillahi sayyidihim wal aali wa saxbi ulil fadli wan nicami ridal ilaahi alal abdil xadiimi wa man saaru ala nahjihi lhaadi lidil qidami yaa aala faadila ahlan fi rixaabikuma naxnu duyuufu وأنتم مالك الأطم نورتم الدار تنويرا يصاحبه إسكاب خير ومير غير منفصل إذا حللتم ديارا حل كالمطر جود وغنم ونور كاشف الغمم أخلدتم اليوم ودا كان ذا وطد بين الخليفة وابن الخالد الخدم هو ابن خال له أيضا وعمته وإن عكست فلم تخطئ ولم تهم أدام ربي لنا حبل الوصال أبت ودام فاضل حب العرب والعجم صلاة ربي مع التسليم في أبد على المفضل بالآيات والحكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ rafet gu am solo googu nga xam ne mu nga sunu gan yu tedd yi nga xam ne ma bàyyi ko kër Cheikh Mouhamadou ci seen këru bopp gi kër sëriñ Mor Roqe naa dañuy jox euh, sëriñ Ousmane moom sëriñ Mahmoudan Bousso mu andil ñu nag diggante. sëñ Mor Roqaya Bousso ak Cheikh Mouhamadul Fadel kon sëñ Ousmane bisimilah. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa wa barakaatu. yéen suñu mbokk yu tedd ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yu baax li nga xam ne ñoo toog fi suñu kanam di ñaan suñu boroom yokk leen ak wér defal leen fajuk aajo defal ko mbooleem njaboot gi topp ci seen ginnaaw yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi nga xam ne moom la suñu mbokk yu baax yi jagleel sëriñ Mor Rokhaya Bousso muy loo xam ne xëy na euh, du lenn lu dul ngir dundal li doxoon ci diggante maam ya loolu nag rafet na njort bu wér ne ña tax ñu di ko def seen xol sedd na ci kon ñu ngi ñaan suñu borom e, defal ñu ci faju xaajo te itam defal ñu ndimbal ba nga xam ne mboolem li suñu maam yi bëggoon ci ñun ñu sàmm ko te e, yeggale ko foo xam ne moo doonoon lañ mébitoon mu mel ne li ñu sàkku ci ñun mooy ñu wax ci diggante Serigne Mor Rokhaya Bousso ak Cheikh Mouhamadoul Fadil xëy na yomb na jafe na yomb na ndax yàlla dogal na suñu jur yi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak seen moo roqee bu so bu e, doon waxtaan buy booy ci ay nopp ñu ne booy na suñuy nopp ndax noote woon nañ lool di ñu wax sëriñ moo roqee digganteem ak sëriñ Touba digganteem ak mbokk yu baax yooyu nga xam ne mbokkam yu baax yooyu nga xam ne kenn jiitoo ci Cheikh Amadou te am nañ tawféex de ca loolu ñu daan wax ñu di ko dégg am na lu ñu ci jàpp ba léegi kon mën naa bañ a jafe te ñi ëpp ci ñoom euh, fekk nañ ci lu baree baree bari bu ma jëlee rek ku mel ne suñu waajur sëriñ Mouhamadou Bousso mm, bi fi sëriñ Mor yi di bàyyi ko booba li ko manqué ñeent fukk xam naa bariwut xëy na ñaar mbaa ñett lay doon bi fi Sëriñ Fall di bàyyi ko ñeent fukkam tegal na ñaar mbaa ñett loolu liñ ci jublu liñ ci jublu mooy kon fekk nañ ci ñoom lu ñu war a xamee dara ci ñoom léegi nag bu ñuy wax seen diggante ñoom ñaar muy diggante Sëriñ Fallu ak Sëriñ Mor Rokhaya Bousso xëy na mën nañ koo xaaj ci ñeenti xaaj xaaj bu njëkk bi mooy diggante maanaam jaxasoo boo xam ne jaxasoog mbokkoo bu ñaareel bi mooy jaxasoog jàngandoo bu ñetteel bi mooy jaxasoog bu ñeenteel bi mooy jaxasoog diggante nit ak euh, xaritam bu mu jaxasoo lool bu ñu nee jaxasoog mbokkoo daanaka ñoo bokk lépp ndax euh, Cheikh Amadou Fadel bu ñu nee man na ma maanaam euh, li jiitu loolu mooy kenn ku ne ci ñoom ñaar doomi bàjjan nga ci sa morom di doomi nijaay ci sa morom sëñ Fallou Cheikhul Khadim mooy way juróom Cheikhul moo mook soxna Roxi Mbàkke mii way juru sëriñ moo roxee ñoo bokk way jur bu góor kon foofu sëriñ Fallou day doomi nijaay ci sëñ Mor Roqaya sëriñ Mor Roqaya di doomi bàjjanam nga jël soxna Awa Bousso mi nga xam ne mooy waajur sëriñ Fallou e, bokk ak sëriñ Cheikhou mi waajuru sëriñ Mor Roqaya ñu bokk benn baay kon foofu sëriñ Mor Roqaya day doomi e, nijaayi sëriñ Fallou sëriñ Fallou foofu di doomi bàjjanam kon ñoom dañoo jaxasoo ci fànn gépp ci ak bokk <coughs> bu dee ci ak jàngandoo xam ngeen ne sëriñ moo roqee bi mu tollee ci war a dal jàng sëriñ Bousso bi moo ko dalal bi mu ko dalalee daanaka ci jamono yooyu ci la ko jox sëriñ Touba eh, lii tegtal bi mooy wax nañ ne bi sëriñ Seexu dikkee di ko jébbal daf ko laaj ne ko ndax dal na jàng ci xam bi ñu xam sëñ Touba ak fi ñu tolloon ci moom ak war ma juñ ko joxoon mu ne ko yow day mbàkkee koo dalalagut dalut di wundu ne bu daloon itam sag dal duñu ko weccee ak geneen dal kon loolu li ñu ci déggee mooy ci jamono yi ku toll ci dal jàng la ñëw Serigne Touba waxtu woowu nag moo ko Serigne Fallou te loolu mi ngi amee fii ci Darou Khoudoss fi ñuy tuddee daaru Rahman léegi muy kër Serigne ab kër Serigne Chouaibou Euh, foofu la ko sëriñ Cheikhu jébbale woon sëriñ Touba foofu nag moo ko sëriñ Fallou nekkandoo nañ fa as ndiir euh, ginnaaw bi sëriñ bi yóbbu leen ndaam daarul alimul xabir ci sëriñ ndaam Abdourahman ñu jàngee fa alxuraan xëy na at yi at yi tolloowut lool ginnaaw ba ñu fa jógee ci ndigalu sëriñ Touba ñu dem daarul mannaan ci maam Thierno. foofu la ñu jàngee xam-xam jamono yëpp itam lu ci ne ñoo fay ñoo fay bokk nekk mën na ñoo jiitoonte waaye waxtu wu ci ne ñoo fay bokk di nekk kon eh, teel nañoo taxoo lool bokk jamono jàng bokk bërëb yu ñu doon jàngee eh, ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ bi jóge na ci géej gi 1902 bi nga xamee ne sëriñ Tuubaa waroon na maam Cerno bi muy dem mbooloo mi mbooloo mu àndaloon sëriñ Mor Roqee ci la bokkoon bi mu dikkee sëriñ Touba sàkku ci moom mu bàyyi fi sëriñ Mor Roqee ginnaaw loolu bi sëriñ bii dem gànnaar yóbbaale ko yóbbaale njaboot gépp ñu ëppoon ci njaboot ak njabootam ña tolloon ci mën a mën a mën a tukki ci mën a mën a tukki ci jamono yooyu te ñooñu kenn diitoo ci sëriñ sëriñ Fallou jamono boobu itam ñoo fa bokkoon nekk woon lool ba daanañu wax ne. Eh, daanañ leen tuddee moom Serigne Fallou moom Cheikh Mor Moustapha Serigne Fallou sëñ Mor Roqee daanañ leen woowee ñetti seex Serigne Touba yi ngir jaxasoo gu ñu jaxasoo woon ba foo gis kenn ka gis fa ña des loolu itam ñi ngi ñi ñi ngi koy nettali ndax xam ngeen ne sëriñ bi ginnaaw pas-pas gi eh, dafa jàppee woon sëriñ Mor Roqee ni kenn ci njabootam gis nañu ba tàyyi ay mbindam te mbind yi mu ngi ci kër gi. njaboot gaa nga ko amee Sëriñ Tuubaa di ko bind ay bataaxal yoo xam ne du jaar ci turam waaye yaa yaa yaa bu nay la koy lay lay la koy woowee loolu eh, di feeñ ci jëflante bi doxoon ci diggante sëriñ ma roqee ak njabootam ku baax googu diirub sëriñ bi nekk gànnaar ñoom ñooñu ñoo fi bokk nekk jaxasoo bay benn bi sëriñ bi demee Ceyeen yóbbaale leen boobu itam ñoo fa bokk nekk euh, foofu nag ci la ñuy duggee ci seen jaxasoog wàllu pas-pas ñoom la sëriñ bi yarandoo ñoom la tarbiyaandoo ñoom la tarqiyaandoo ba dégg ngeen nettali bu siiw boobu sëriñ nga xam ne sëriñ Fall moo ko nettali euh, di nettali keroog ba ñuy yeesal seen pas-pas loolu itam euh, gis nga ne ñoom la ko sëriñ bu boole woon. loolu nag mm, di di di di tekki seenub jaxasoo ak seenu bennoo ak benn lu guddoon sëriñ bi benn la woon bi loolu lépp wooyee ba sëriñ bi ñëw njaareem bi mu leen di yabalaat Touba ñoom la yabalandoo woon kenn ku ci ne mu dëxal la fi béréb nga nekk fa di fa jaamu yàlla boo leen liggéey at mu ne loo bay yóbbul sëriñ bi boo lekk alxuraan di bi bind di ko yóbbul sëriñ bi kon ñoom bu ñu waxtaanloo ci Cheikh Modou Fadal ak Serigne Mor Rokhaya mën nañoo wax ne eh, ginnaaw bu lépp weesoo ci ak jaxasoo duñu woon ñaar waaye benn lañu woon eh, gis ngeen Serigne eh, dégg nañ ba tàyyi ci mag ñi ñuy wax ne Serigne bi Cheikh Modou Fadal. bëgg gum bëggoon sëñ Mor Rokhaya ak taxaw gum taxawoon ak moom e, tax na ba bu ngeen gisee kër sëñ Fallou kër sëñ Mor Rokhaya gi nekk ci wetu kër sëñ Fallou gi te suñu bàjjan soxna moom dafa dëkk fa tey sëriñ Fallou moo ko ko wutaloon moo ko wutaloon ngir bëgg ñu jege ndax gis na ne e, bëgg mu sori ko li ñuy jotaayoo bari na mu yërëm ko ci bàggante bi tax mu fàggul ko bërëb ci ci ci peggu këram ngir gën a bëgg a taxaw ak moom dégg ngeen. nettali boobu nga xam ne sëñ Bàcc Mbàkke moo koy nettali dafa naa mooy xalifa sëriñ sëriñ sëriñ waaw euh, band yi band yi mu ngi ci band yi mi ngi ci mi ci internet bi di wax ne moom la sëriñ Fallou daan yónni bu xëyee da koy yónni ne ko demal wala ma sëñ ma roqee bu dikkee ñooy bokk euh, jëfandiku bu yoor yi bu bëccëgee mu woo moom lay yónni naka noonu bu guddee te moom lay yónni loolu lépp di tekki jaxasoo guñ jaxasoo woon ak nekk guñ nekkoon benn ak bëgg gu sëñ Fallou bëggoon ak bëgg gu ko sëñ Mor Roxaya bëggoon euh, loolu nag ñu ngi ñaan euh, li nga xam ne moom la njaboot gi namm moom la moom la njaboot gi namm nam namm dundal ba tax ñu amal bis yu mel nii ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ci li kawe njortu xëy na wax ji dañoo xaw a bett moo tax ba mënuñ koo xóotal mënuñ koo mënuñ ko yeggale li ñu bëggum mel waaye daal ñu xam ne njaboot gi bëgg nañu lool ci jotaay bi di ñaan suñu borom defal ñu ci fajug xaaju defal ñu itam ñu am ci bëggug suñu maam yi nga xam ne ñoo tax ñu amal jotaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Ousmane ci kàddu gu am solo gi diggante sëñ Maroqiya ak sëñ Fallou yaakaar naa doy na ci sëkk xalifaam bi toog di sëriñ Fallou Bousso loolu moom. misaal la moo xam ne mu ñu mën a teg loxo waaye doy na ci itam nag ànd gi ànd liggéey bi ñoom ñaar ñoo ànd liggéey bépp bu liggéey bi mat ñoo jàngandoo ñoo àndandoo waaye liggéeyu jumaa ji bi matee ci la sëñ ma roq ya dellu ci boromam sëñ Fall daa waxoon ne nijaayam lay yëgali ne matuk jumaa ji moom la yët caabi ji yaakaar naa loolu doy na sëkk ci seen diggante ñoom ñaar waaye doy na ci sëkk itam nag sëñ Abdul Karim mi nga xam ne doomu sëñ ma roq bu so sëñ Fallou jëloon ko yóbbu ko Touba Bogo ba tey jii sëñ Fallou Bousso mii mi ngi may wax léegi ne ma na nga jot li sama cant ci njabootu Cheikh Mamadou Fadal ndax bi fa waajuram nekkee ba jógee fa sëñ bu Bousso Dieng jël ko yóbbu ko fa mu nekk fa ñoom cër ba mu fa war a am lépp jox nañ ko ko ndax sëñ Modou da ko waxoon ne demal yoral ma diine ji ak lislaam ji doxal ma sama diggante ak taalibe yi bi alaaji Mamadou Lamine Baara ñëwee loolu la feddali bi sëriñ Abo ñëwee loolu la feddali ba tey jii mooy imaamu Touba Bogo jàpp naa ne loolu jar na feeñal bu baax ci jataay bi kon xam naa dañuy daal di woo euh, sëriñ xaadim moom sëriñ Abdul Fatah bu ko defee mu daal di yëkkati waaw sëñ ginnaaw bu avant muy ñëw sëñ Fàllu moom sëñ Ahmadou Rafaay mooy ñëw nag tontu Serigne Sam ci ak xasida goo xam ne moom da ko def ngir euh, taaral jataay bi ak itam wone mbégte mi nga xam ne am nañ ko ci dikk gi ñu dikk fekk si seeni bokk di seen lépp kon sëñ Fallou da ngay ñëw sëñ Xaadim mën ngaa ñëwaale incha allah bu seen Fallou daanelee moom itam mu yëkkati kàddu délégation bi bu nekkee sëñ Moutada Bousso dina ñëw ci. kàddu sëriñ bi muy sëñ Fallou moom sëriñ ma Roqiya sëñ Ahmadou Rafaay yi nag moom mooy tëj jataay bi bu ko defee ñaanal mbooloo mi sëñ Xaadim ko mën ngaa jege si sëñ Fallou bismillah aouzu billahi min ashaytaan rajim bismillahi Sam baxru basit la jël jël miimiya ma jëm ko ca toppandoo itam جئنا بكم ضيفكم قلتم لنا مرحبا قلنا لكم جرجف ترحيبكم كرم جئنا بكم ضيفكم قلتم لنا مرحبا قلنا لكم جرجف ترحيبكم كرم يا أهل الشيق ويا أهل البسوب ويا أهل الفضيلة أهل المجد من كرموا أهل المحبة يا أهل الأخوة يا أهل الشهادة عند الشيق والقدم ahlul fadili ataw bima lahum barazat min nuxbatin kusibat xaasan bikum lakumu ahlul fadili ataw bima lahum barazat min nuxbatin kusibat xaasan bikum lakumu xuluubuna nuwirat falfamu yascubuhu an nutqa walficlu lam yabluguhu taqyimu ballig wa baalig fa baalig fi kabirihimu صغيرهم طفلة في الحول لا القيم لا غرو في أسرة صليلهم مضر صليلهم خلق ما قطها قلم الله أكبر من قد شاءه عملا ما ساءنا فله ما قطها القلم الحمد لله رب العالمين على fadli l uxuwati wal ixwaani du himamu siñ saam de bett na ma siñ saam de tey jam na ma jam-jam bi daa sori sax ne kon ñu laaj kii ko moom. macha allah jërëjëf laa xarwa sa maam Cheikh Mamadou Fadel ku mas a tagg ak xasida day wëlbati këyit wa rek tontu la ci baxu bi ak xaafiya bi ak wasni bi lépp <laughs> kon nag tubarkàlla yàlla na suñu borom defal cat Cheikh Mamadou Fadel Cheikh Abdou Rafaay eh, sëñ Xaadim sëñ Abdou Fatah kon moom mooy ñëw nag wax ci turu. délégation bi nga xam ne ñoo jógee kër Cheikh Mamadou Fadal si xaadim bismillah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa yi fi yi ñu àndal muy Cheikh Amadou Rafaay yi sëriñ Ahmadou Badawi yi mi nga xam te ne bii moo jiite liggéey bi di jël nuyoo yu set yu sell yu kawe yu mag yu ñu tibb ci suñu xol tegu ci loxol Cheikh Maodul Fadel moom sëriñ Mor Roqee mu jàllaleel ñu ko ci loxol sëriñ Dan Buso ak mbooleen ñi mu bokkal kër sëriñ Mor Roqee di siyaare bokk yi fi teew yépp di leen yëgal ne bi ñuy ñëw délégation Ahfad Cheikh Maodul Fadel bi naa bu ñu àndeek seeni waajur ba egsi ñi ngi ànd ak waa kër Serigne Afé ñang ñi nga xam ne ñoo bokk soxna aw Bousso ñi ngi ànd ak waa kër soxna ñi nga xam ne ñoo bokk soxna Awa Bousso waaye ñi ngi ànd ak waa kër Serigne Ibrahima Bousso ak waa kër Serigne ñi nga xam te ne bii ñoo bokk soxna ñoo bokk ak Serigne Cheikh Cheikhu mi nga xam te ne bii muy waajuru euh, Serigne Moroqee nga xam ne dara génnuñu ci dara génnu sët ah, sët Cheikh Modou Fadal ndax ñu ñu ñu fi fekk si ñoom ñoo àndoon jógee ko Sëñ Fallu ñëw waaye ñu ñëwit ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo nekkoon fii di waajal délégation bi nga xam te ne ñoo teertu ñu jóge woon ko Cheikh Modou di nuyu sëñ Abdou Lahad Jaxate ak mboolem kilifa yi nekk ak sëti sëñ Mor Roqee Bousso ak sëñ Abdou Karim ak mboolem koo xam te ne bi mi ngi aju sëriñ Cheikh ak noo ci noo ci ajoo di siyaare suñu bàjjan yi nga xam te ne bi sëñ Mor Roqee la ak mboolem soxna yi nga xam ne bi ñoo ànd liggéey bi di leen yëgal nañu ci sëtu Cheikh Modou Fadal yi suñu njiit suñu kilifa sëriñ Cheikh mu ngi ni toog ak sëriñ Bayndaam Fall ak sëriñ Saliou moom Cheikh Modou Moustapha Fadil ak sëriñ Moustapha moom seex Cheikh Modou Basir ak seeni rak góor ak jigéen soxna yaa nga nee toog ñu leen di feeñal suñu mbégte mu rëy mbégte moo xam ne day delluwaat ci ñakk xam sëriñ Touba waaye day delluwaat ci jéem xam sëriñ Touba ndax jotaay bii boo xoolee li ñu nett ci Cheikh Modou Rokhaya Bousso boo ànd koog Cheikh Modou Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh du Fadal néewaanal jotaay yu baree bari yoo xam ne bii ñii fi nekk kenn fekk nañ xam naa bu ñu ko doon seet ñu ko fekkee ñu néew néew lay doon waaye lan lañ def ci seen njaboot lañ lañ def ci xoli seen seen i sët ba ñoom xam ne Cheikh Modou Fadal Cheikh Modou Rokhaya benn lañ ba tax ne suñuy kilifa ci waajtaayu màggalu Kazu Rajab gi ren bi ñuy waxtaan bi ñu tuddee Cheikh Modou yi ñëpp ne. daana rafet waaye gën naa rafet kon loolu réy réy ci ci ñun ñi nga xamante ne bi ñoo tànn ci ndigalu suñuy kilifa Cheikh Mor Roqee waaye gis nañ ne yéen ñi nga xamante ne bi tànn nañ ngir jël bis bi andi ko Cheikh Mor Roqee yëfi rëy na lool ci yéen ba kawe njortu ci liñ ko gisee kon ñu leen di xamal ne lañu daan wax rek la ñuy wax sëñ Cheikh ñu Cheikh Abdou Karim ma nga ne bàyyi ndaam faale ngi nekk sëñ Saalix en fait Cheikh Modou Fadel ñu ngi leen di gën a tàllal loxo ci lépp loo xamante ne bii waa ga Cheikh Mor Roqee ña nga lu ngeen lépp loo xamante ne bi yéen a nga ci leen wóor na ñun bu ñu ko yëgee kenn duñu si jiitu kenn duñu ci kenn duñu si mujj ndax lépp loo xamante ne bi sëñ Cheikh Modou Fadal bëggoon na ko ci defar ak bokk rek rogalaat na wàcc ci njabootam gi muy Cheikh Abul Baraka fi yàgg te wér ak Cheikh Modou Basir nga xamante ne mooy jëwrinam ak Cheikh Abdou Fata mi yor kàddoom ak Cheikh Modou Martala mi nga xam ne moo jiitu sëñ Ahmadou ak Cheikh Modou Rafaay topp seen ginnaaw tàllal nañ ñëpp loxo bu dee ak taalibe gën nañoo suufee ñëpp ndax Cheikh Modou Fadal fi ñu lu dara lu dul ak taalibe lépp lu ngeen gis ci ñun loo xam te ne bi nuru na lu du loolu rek na la wóor ne loolu taxut ci ñun xam naa dañoo maanaam nekkut ci dañoo dem ba dañoo dox ba mu dab ñu rek waaye lu dul ak taalibe bëgguñu ko doon lenn lu dul ak taalibe bëgguñu ca nekk bëgguñoo rëy bëgguñoo xëccoo bëgguñoo muuroo bëgguñoo rawante dañoo fas yéene doon ab taalibe rek ndax ab bi ci la lépp nekk Cheikh Modou Fadal li ko nit ñi nit ñi bëgg bëgg bëgg bu liggéey Sëriñ Tuubaa bu am ngërëmam woyof ak yaatu ak yaatal moo waral mu toll fii mu toll te gisoon ni mu defoon Cheikh mu roqee bëgg dem rek maa ngi gis benn photo boo xam ne ñoom ñaar ñu ngi bokk taxaw yor gooñu gerte nga xam dafa bari loo xam te ne bii mi ngi koy tegtal ci ñu gën a gën a góorgóorlu comme ni ko suñu fàll bu sa waxee léegi yàlla na ko suñu borom dolli xam-xam bi moog Cheikh Serigne Bara Fall di suñu rakk di suñu xarit waaye Cheikh Mourtada noo ngi nii daal Cheikh suñu Cheikh a nga ne bàyyi naa am faale ngi nii lépp loo xam te ne bii am murit dana ko jàppalee moroomu muritam na ngeen fexe ba ñu jëkku ndax fa suñu leen doon leen lan la dudd ay taalibe bi ndax Cheikh Modou Fadal kat di Cheikh bu fataa di faral di wax rek suñ fàllu képp koo xam ne ñu ngi koy tudd ko tudd nga gis ci moom leneen nee na na dem seet soxna sa ko jur waaye du du la daray sëñ suñ fàllu ndax suñ fal ren rek mooy nekk ci moom moo di taalibe bi te lii ñu def yàlla lañ ko seereel suñu xol lañ tibbee jëf jii pour andi ko Seex Mor Roqee bu suñu àndandoo def jotaay bii ànd kook suñu bokk bopp yi nga xam ne ñoo ko bokk tàmbalee kër sëñ Mbàkke Busaak sëñ Ibrahima Busaak sëñ Afiya Busaak sëñ euh, Afi Ñang ak sëñ euh, soxna Mariama Kunta ak mbooleem ñoo xam ne ñoom lañ ko seqal mbégteem suñuy kilifa rek la ñuy feeñal muy wàcc di wàcc ba egg ci seen sëy sët di wàcc di wàcc ba egg ci man mi nga xamante ne bi maay jaamu sëti Cheikh Modou Fadali ngir ma jàll seen kàddu lu ci dëng nag ci man la waaye ñoom lu gënoon a rafet waajaloon na ko ngir bëgg ma jàll leen ko lii yàlla na yàgg te yàlla na a yàgg te ku fi teew yàlla na la suñ borom dolli ci barkeb rajab gi ñu tolloo ak barkeb kasu ak barkeb ki ñuy wooteel kasu ak ki tax ñu def jotaay bi Cheikh Modou Rokhaya Bousso salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ Xaadim kàddu yi jot na sëkk eh, mbar nga ndaw ñu la yëndi woon ñu la jot li loo jot li nga ko ba tabarkàll xam naa kon sëñ Murtada moom mooy ñëw jël kàddu ci turu sëriñ Fàllu Buso moom sëriñ Modou Rokhaya di xalifam sëriñ Modou Rokhaya ko defee bu noppee ñu jox sëñ Ahmadou Rafaay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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di yëkkati suñu kàddu ci turu suñu kilifa di suñu way wayjur muy a cheikh Mouhamadunil Fadal mi nga xam ne moom la yàlla def tey mu wuutu sëriñ Moroqee Bousso mook rakkam sëriñ Yuusufa ak suñu bàjjan yi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Moroqee Bousso kàddu googu sëriñ Fàllilu di yëkkati mooy kaddu mbooleem njabootu sëriñ Mor Rokhaya Bousso mbooleem njab ñi nga xam ne ñoom la jaboote te sëriñ Alaaji Falilu Bousso nekk ca bopp ba ak sëriñ Mahmoudan ak seen rakk yépp di yëkkati nuyoo bu sell nuyoo bu tedd nuyoo bu màgg buñ tibbee ci suñu xol jëme ko ci njabootu ak Cheikh Mouhamadul Fadal di ko teg ci loxo yi Cheikh Mouhamadul Rafaax yi ñi nga xam ne mu ngi ci jataay bi ak sëriñ Ahmadou yi di ñaan itam nuyoo boobu ñu tegal ju ko ci loxo yi sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne mooy jëwriñ ni Cheikh Mouhamadul Fadal tey di ko ñaanal moom itam suñu borom may ko fan gudd lool te may ko wér ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëriñ Touba am ko ci liggéeyal Cheikh Mouhamadul Fadal suñu borom kàttanal ko ba mu àggale ko fa mu ko bëgg a àggale te mu ànd ko ak njaboot gi yépp euh, di wax ne sëriñ Falilou Bousso nee na ñu ngi leen di cant. sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci acte bu am solo bii nga xamante ne bi def ngeen ko muy njabootu Cheikh Mahamadul Faadal ñoo ñëw tey ci seen biir kër ñëw ci kër Serigne Mor Rokhaya Bousso te ku xam Serigne Mor Rokhaya Bousso xam diggam ak Serigne Mahamadul Faadal kon bu fekkee dañoo nekk ci wàccaayu màggalu Kazu Rajab ñu fas yéene tàmbali liggéey boobu yi ñëw tàmbalee ko ci biir kër Serigne Mor Rokhaya Bousso Euh, sëriñ Alaaji Fadilu nee na mi ngi sant ci bu baax a baax yàlla di sant sëriñ Touba di sant sëriñ moo Mor Roqaye waaye di sant mbooleem njabootu Cheikh Mamadou Fadal ndax lii mooy li nga xamante ne bii moo war ci diggante ñaari kër yooyu yi ndax ñi ma jiitu léegi wax nañ ko sëriñ Fallu ak sëriñ Mor Roqaye li leen yàlla boole dafa bëri euh, yàlla dogal na kenn génnu ci sa morom ci fenn ndax. Euh, ni ko mbokk bi waxee léegi rek soxna Roxaya Mbakke mii wajju sëriñ ma Roxaya Mamour Anta Sali ko jur Mamour Anta Sali moom mu te moo jur Seexul Xadiim mu jur Seex Mamadul Faadal kon ñoom benn lañu waaye soxna Awa Bousso mii wajjuru sëriñ Fallu mook sëriñ Seexu muy wajjuru sëriñ ma Roxaya ñoo bokk sëriñ bu soobee kon sëriñ Fallu mooy sëriñ ma Roxaya sëriñ ma Roxaya mooy sëriñ Fallu waaye bokk góor gii leen yàlla boole nga xam ne mosuñoo tàggoo ci fenn kenn ku nekk ci ñoom ñaar di ko dund te di ko dundal lam leen di ñor ñor ak lam leen di yitteel yépp la leen gën a ñor gën leen yitteel mooy bokk pas-pas ci seexul xadim moo leen gënoo ñor ndax bis ba nga xamante ne bii ca la la seexul xadim woowee woon ca Jolof ñoom ñëpp keroog la ñu jaay seen ak njuréel jaay seen bokk jébbalu ci seexul xadim def ko muy seen jëwrin loolee nga xamante ne bii nag jataay boobu ñu bokkoon ci seen seexul xadim jataay boobu mooy jataay bi leen gën a yitteel mooy jataay bi leen gën a ñor te jataay boobu rek lañ doon dund ba bañ fiy jógee loolu yi nag ñun ñi nga xamante ne bii ñun lañ fi bàyyi lay ngor ci ñun mooy ñu bañ a mujj pese bi mu réer fas yéene foofu yi nga xamante ne bii fa la suñu wayjur yooyu nekkoon fa suñu maam yu baax yooyu nekkoon ci pas-pas ci doon ab taalibe ñu fas yéene bund loolu te di ko dundal euh, fas yéene itam bokk gi nga xamante ne bii moom la leen yàlla boole woon ñu rafetal bokk googee di ko doxee di ko waxee loolee nag njabootu Cheikh Mamadou Fadal tey jii def nañ ci jéego bu ama ama am solo euh, ñu ngi leen di xamal ne. suñu xol sedd na ci yéen bu baax a baax suñu xel tam dal na suñu yaakaar gën naa dolliku ndax euh, seexul xadim lii rek mooy mbiram léppam kanam la jëm ndax fa ko seexul xadim bàyyi woon ba seex Mamadul Faadal ñëwee siñ ma roxee nekk fi yaakaar naa tegu nañ jéego bu gën a sori boobu jéego waaye tey jii itam bi fi seex seex abul baraka nekkee alaaji Falilu Bousso mii nekkal fi sëriñ ma yaakaar naa jéego bii nga xamante ne bi seex ngeen ko tey mooy jéego bi gën a mag yooyee jéego kon nag loolu li muy tegtale rek mooy daray sëriñ seexu daray seexul xadim du dellu gannaaw lépp kanam la jëm kon ñi ngi leen di gën a tàllal loxo bu baax a baax te di leen gën a jox suñu bopp bu baax a baax te di leen xamal ne lépp loo xamante ne bii nekk ngeen ka fas nañ yéen a ànd koog yéen di leen ñaan itam lépp loo xamante ne bii euh, lu ñu war def la wala lu ñu war a wax ca kër ga ñun itam na ñu ngi tàllal suñu loxo tey xaar lépp loo xam ne agsi na ci ñun rek danañ ko def nañu ko bëggee waaye tey jii daal ñun nañu xam ne seen jataay yii ngeen xam ne moo ngeen moom ngeen ñëw ci barab bii wóotale wuñ ko ak Cheikh Mamadou Fadal mu dugg ci biir nekk sëñ Mor Rokhaya loolu moom mm, bëgg nañ mu leer ci bopp yépp ne njabootu sëriñ Mor Rokhaya gépp am nañ mbégte moo xamante ne mbégte mu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu la di sant yàlla bu baax a baax a baax te di leen sant di ñaan itam liggéey bii nga xamante ne bii moom la ñu tàmbali te ñëw tàmbalee ko fii ci kër sëriñ Mor Rokhaya yàlla na suñu borom defal lu ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ba am ci ngërëmul Serigne Touba am ci ngërëmul Cheikh Amadou Fadal ak Serigne Moroxe yi mi tax ñu daje fi suñu xol sedd na ci yéen bu baax a baax a baax Serigne Fallou leen mi ngi leen di sant bu baax a baax di sant itam mbooleem bokk yi nga xamante ne bii teewi si nañ jotaay bi ndax euh, bisub Serigne Moroxe mooy bisu du njabootu Serigne Cheikhou Bousso gépp te mbooleem njabootu sëriñ Cheikhou ñëw nañ àndandoo ñun ak liggéey bi loolu nag day tegtale ne kër gi du ñaari kër du ñetti kër genn kër képp la kon loolu itam sëriñ sëñ sëñ Ahmadou Rafaah yi ñu ngi leen di seeral ne njabootu sëriñ Mor Roxee lañ sëñ Mor Roxee lañ darajale bis bi waaye ànd nañ ko mboolem seeni bokk moo tax njabootu sëriñ Cheikh gépp a ngi ci jotaay leen di sant baax baax di leen gërëm di ñaan itam suñ borom gën leen fay yàggal te gën leen a taxawu di sant mboolem ñi nga xam ne moom la ñu bokkal sëriñ bu soobee li tàmbalee ci kër sëriñ Bakke bu soob ba ci kër sëriñ Omar gënn kër goo xamante ne bi teewul ci jotaay bi loolu nag mooy ay bokk yu bokkoo ay bokk yu déggoo loolu moo waral lii moo amee noonu ci kon ci turu sëriñ Fallu ci turu njabootu Serigne ma roqee gépp ñu ngi sant mbooleem njabootu sëriñ bu soobee di sant itam mbooleem taalibe yi nga xamante ne bii ñoo aju ci kër Serigne ma roqee bu soo fu fi taalibe mën a nekk ak kër gum ci man di doon gis nañ seen taxawaay bu baax a baax a baax baax ci liggéey bi gis nañ tam seen ak jàpp ak seen ak jàppale loolu yi nag mooy li nga xamante ne bii moom la suñu wayjur yi àndee woon ak yéen loolu itam mooy li nga xam ne moom la ñu àndee woon ak yéen te mu jëm kanam ndax le Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Lamine Bara daan wax rek ne lépp lu fi nekk rek dongo yi la kon gis nañu lépp loo ngeen gis lu fi am rek tam na ngeen xam ne donga yi la kon ñi nga xamante ne bii nag ñun ñooy seen i jëwriñ ci kër Serigne yi bu Bousso kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te di leen gërëm te di leen ñaanal ci barke Serigne Mor Rokhaya mii seen buntu ci Serigne Touba suñ borom sàmm leen te taxaw leen te leen fa ngeen bëgg a àgg leen sant bu baax baax di sant mboolem koo xam ne képp koo xam ne teew nga ci jataay bi moo xam góor la moo xam jigéen moo xam mag la wala mu ndaw ak ku mën a doon rek ci turu Serigne Fallilou ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la xamal na daal euh, lii nga xamante ne bi defal ngeen ñu ko daal rëy na ci ñun rëyin woo xamante ne bi li ñu yëg ci suñu xol ci mbégte mënuñu koo sax tudd ci suñuy lamiñ ñu ngi leen di sant bu baax a baax di encore di sant njabootu Cheikh Mamadou Fadal di leen ñaanal suñu borom dolli leen a taxaw te dolli leen dimbale te defal leen ngërëmul Serigne Touba tey ak ëllëg di gën a feddali kóllëre gi ne bi moo doxoon ci diggante Serigne ma Roqoya ak Cheikh Mamadou Fadal di gën a feddali kóllëre gi nga xamante ne bi moo doxoon ci suñu wajur yi nga xam ne ñooñu ñoo fi jiitu woon te ñu fi tey ñaan itam suñu borom doon leen doon leen yërmande ak njëggal ñoom itam ñoom ñi nga xam ne suñuy wajjur lañu woon te nekkatuñu fi ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal suñu borom doon leen njëggal te doon leen yërmande te warale leen seen wajjur yu ak seen maam yu baax yooyee kon ci turu sëriñ Fallu ci turu sëriñ Yuusufa ak mbooleen njaboot sëriñ Moroxee sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp tam di ñaan yàlla nañ ko fekkewaat at yu bëri lool di ñaan tam màggal gi nga xam ne mooy Kazu Rajab yàlla na suñu borom defal na ci ñu am ci ngërëmul Serigne Touba ak Cheikh Mamadou Fadal di jégalu tam ci kàddu yu lépp lu ci dëng ci man mi ñu ko yónni la lu ci jub itam ci kilifa yi ma yónni woon la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Murtada ci kàddu yu am solo yi kàddu sëriñ bu Bousso moom sëriñ ma roqiya kàddu yi jot na sëkk ni ko sëñ bi santaane woon am nañ ci lu kawe suñ jot ñu ngi ñaan suñ borom sàmm la te aar la gis nañ coordination liggéey bi buñ jàppee bis bi ba léegi yaa ngi ci kanam njaboot gi toogoo noppaluwoo lu dul rek bëgg bis bi jag sëñ Ousmane mi ngi may wax léegi ne njabootu sëñ ma fam sëñ ma Samba Faati Bousso ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñoom dañoo ñëw jàpp si ci liggéey bi nee ñu ngi leen sant di leen gërëm di sant njabootu sëriñ Seexu gépp bàyyi wuñu kenn xam naa kon dañuy jox suñu Ahmadou Rafaay Cheikh Mahamadul Fadal bu ko defee mu yëkkati kàddu yi sëriñ abul Baraka bu ko defee ñu bismillah ñu ngi nuyu bu baax président sëriñ Boub ñu agsi ci jataay bi léegi Eh, di ko dalal jàmm bisimilah. kon ñu maase déglu sëriñ bi ñu ngi dalee sant bu baax rek. njabootu moom ma Mamadou Fadel ci cër bu rëy bi nga xam ne dox nañ ko sëñ ma roq yi bu sa tey yaakaar naa boo xoolee jataay bi dañ fi gis ay sët yoo xam ne sëñ ma roq sëñ ma roq yi ak sëñ Fallou ñu bokk te loolu rek doy na sëkk misaal ci diggante boobu waaye maa ngi wax léegi foo rek gis ko bu sëñ Fallou mooy xalifu sëñ ma roq yi doy na waaye itam liñ fi mbokk yi nettali lépp ci alaaka bi doxoon seen diggante doy na sëkk moom itam kon jox sëñ Ahmadou Rafahi bu ko defee mu yëkkati kàddu ci turu sëriñ Abo nag ñëpp marché di bismillah bismillahi arrahmani arrahim aleykum wa wa barakaatu balaa ma yëkkati kàddu yonent bi nga xam ne bu ñu ca sottalee duñ ca tegaat lenn dañuy jëkk ñaan rekk mu may ñu ñu ne ñonkoos ca kaw daaba ja nga xam ne ku dem ba sës ne ñonkoos ca kaw muy jéggulu ndax su ngeen gisee suñu yéex a agsi fi barab bi li wolof di wax moo ca am wolof da daa wax ne ku am xelam jub aw yoonam mën naa dëng am na ku ñu doon néggandik koo xam ne mëntuñu ñàkk ci jataay bi loola moo waral loola kon na nga koy jégalu bu baax a baax di leen njëkk euh, jottali nag kàddu yoo xam ne mu ngi jóge ci sëriñ Abo Baraka moom alxaaji Muhammadul Faadal mu teg ko ci yoxoy sëñ Abdul Fattah mi nga xam ne moo jiite liggéeyu màggal gi sëñ Ahmad Badawi yi muy toog kaddu yi ay kàddoom la ndax moo jiite comité d'organisation bi kon man lu ma ci war a doon xawuma ko lu dul fekke te fekke moom luy mucc bariwut daanañ wax ca suñu xewi maam ya bu jëkk naan maam loo ci doon mu ne fekke sëriñ ba ngi leen di nuyu bu baax kaddu yi jiitu tënk nañ lépp te luñ tënk dana jafe ab doxam gaaw tënk nañ fi daal fàttaliku bu rafet ak fàttali ko moom ku ne dana ko am baqa u zikr ñëpp danañu ko am waaye tay tayyib moom lañ fi doon nafaraat tey suñu boroom bi nga wax ak ñun ci alquran naan fàttali ñi muy fàttali mooy waroom xel yi nga xam ne lu ñu sëq ak seen moroom jaam rawati seen mbokk du daga ci ñoom mukk alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almithaq diggante sëriñ ma roqee bu sob ak alxaaji mahamadul fadil ku xam kenn ki rek danga xam ko ca des lenn la moom la wolof di wax nan sotti ci ak def ci su fekkee moo bokk ñoo bokk fuñ jëm benn la ñaari téere sëriñ bii sëñ Fadlu bu sa xasan doon waxtaanee ñoom ñëpp seeni waxoo nga ca biir ba ba muy soob suñu borom bi mu jëkk a wax muy ananu ab dëkk di mel ba ki sëriñ bii defar man faa dëkk bu ci jëlee misaal ci Touba taxawaayu alxaaji Mahamadul Fadal ak sëriñ moo roqo yi bu seen yi yoxoo nga ne ca wet wettaral ndax tudd na am ndox bi dëkk bi am ndox fi la fekk suñ ma roq ya tudd na yomba dem bi dëkk bii am aw yoon fi la fekk suñ ma roq ya woon mook suñ fal ab liggéeyukaay bi ci gënoon a siiw ci jamono yooyee gannaaw tool yi mooy jab yi ñuy wax okaas am na ku bind ci jamono yi ñuy ubbi jumaa ji dëkk gànnaar suñu fal nag moo waxoon ne ay wolof laa koy wax ndax ay wolof laa koy waxal dafa bind okaaw wan ko suñu fallu suñu fallu ne tereet def ko racine racine mooy raagu amul tomb ne ko jubluwuma ca googee di ma ci jublu mooy lii ma yore nii nga xam ne ku dox kuy dox mu dimbali la ci sa dox bi kon ku jóge ci jumaa ji dem ca jaba mooy liggéey rek su julli jotee mu ne waat ñokket fa jaba ñëw ci jumaa ji yooyu yëpp ci fi la fekk suñu ma roqee mu nekk ak Cheikh Mouhamadou Fadal bu dee lu jëm bu fekkee ñaareelu téere bi la it muy xoqal bu kaa moom lu mat a taxaw tuuti la ndax xoqal bukaawu juróom-ñaar fukki bayit ak juróom-ñett yi mu doon nit ñi dañ ne ca sempet wenn rek di ko làng-làngee fu jëm mooy tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati te fekk sëriwut ak diggalut téere ba la ko jiitu sëriñ bi junj na ko léegi mooy nag ab sëriñ di mel ab sëriñ mu ni mel la topp ca gannaaw béy ba mooy nu ab taalibe di mel sëñ Fallu Buso moom sëñ Xasan nag nee na te loolu mooy dëgg sëriñ bi ci murit gi moom benn la ñi ci des ñëpp dañ caa topp bari nañu baax lool nag waaye yàlla boole na leen ñoom ñaar ba sëriñ bi wutee fi mu bëgg a nit ñi ba noppi wax na leen ñi ñuy àndal ana ku ci nekk boo bëggee ànd ak moom nooy ànd ak moom ndax moo ne woon fa ca yéen jolof sëñ lu nee na mu jug ca la lii ma amee ma jur la taxut taxut nga am ci ñu jural ma la taxut nga am ci ñu jural ma la mooy koo xam ne kii juróo ko nga xam ne bu àdduna soppi ko bu ñuy joxe sa alal mën nañ ko saa ba a jox waaye nag sa boppa kooku si mu roqee la aw ma jarabaat aw ma rakk si ma sàmba ak ñu mel ni moom aw ma doom muy si Mourou Moustapha ca jamono yooya ci góor ñi ñu ñu ñu siiw sëñ Fallu sëñ Baara ak suñu Basiiru ak sëñ Abdullahi fekk na ko fa ku ci bëgg nii ngay def sëñ Fallu ne moom nag bañ demee njaaree mu dund as kayit jox ko kayit sa mbind ma ca nekkoon mooy yaa ayuha sheykhul nafiisul murtajaa yaa faatiham maa kaana qablu murtajaa bayit yi ñi ko xam bari na li dox suñu diggante kon man ak yow ma tudd sa doom moom lay jaay kenn amatul njëgam nag ku dut yow kuy jaay moom dangay jaay ku am njëg jënd waaye yow laa bëgg nga jënd boo ko jëndee ba noppi it njëg def naa ko àddiya bu ma ko jox barkeelu faltaqbaluha ya malaadu karama la ziltumu bayna albaraya alama bi jaahi maxdumikum almufadali xayri alawaili maan wal awali loola la ko daloon ca aju makkaam nga rek moo ko ki dal la ko tàmbalee bisu keroog ba ba muy soob sunu boroom waxaaleel na ñëpp ndax ba mu ajee makka dëgg la àndutoon nag ak suñu ma roqee bu sub waaye maa ngi këyit yoo xam ne ñu ko am bari na ñi ñëpp am nañ kum xam rek bind na ci saw tur buy ñaan dana tudd ñëpp kenn par kenn ñi nga xam ne ñëwaguñu woon it ba muy aj it muy ñun ñi ak ñi jiitu tuuti dafa ne wa gayrihim ñii ak wa gayrihim wa xayrihim wa xayrihim kon boog foofu laa teg ne ñëpp la waxaale jaayante googu yi kon lim bu néew ba mu doon waxal ba Sëriñ Tuubaa doon waxal booba suñ ma roqee fekke woon na ko kon boog lii nga xam ne moom ngeen def day bëgg a mel ne kaar kaar mu jiwu leen ko puso ba mu réer ndax da ngeen a wat ca watit wa waaye nag dox bi des na lu bari lim des mooy kenn ku ci nekk ni ko suñu murtulaa waxee léegi bu dee ab sëriñ nga ci nga fexe ba mel ne xaaj bu njëkk ba sëñ bu mag bi di wax ci xoqal bu kaaw boo ca deb taaliba it nga fexe ba bokk ca xaaj ba topp ca Tuubaa li abdin muridin sadiqin lahum wu jiitu ñaa ko moom loolu rek moo fi des cib liggéey te buñ xëyee suba teel rek ñu tàmbali kenn ku nekk fexe ba loo laal ci suñ mor roq ya ak yi bokkam nga fexe ba bu ëllëgee bu say njaboot di waxtaan buñ jàll ci sañ mor roq ya waaye ci yow la ñuy tàmbalee yam ca waaye ku laal ci Cheikh Mamadou Fadal it bu ëllëgee bu sa waa kër di wax tàmbalee ci yow yam ci yow ndax am na koo xam ne da doon wax ne lu mu wax rek. ne diw nag doomi Sëñ Tuubaa la te diw nag doomi Sëñ Tuubaa la ma ne ko bàyyil baat boobu moom lu tax ma di ko bàyyi ma ne ko yow dangaa saxal ne boroom Tuubaa moom liggéey na ci ay njabootam dañu mel nañu war waaye ay njabootam nag liggéeyuñ ci seen njaboot dara ba tax seen bàyyi lañ fa naan ñukk di waxtaane seen maam mu ne ma du ma d'accord ci lu bari waaye xawoon na maa d'accord ci loolu kon boog ku bokk fenn fi dogalub yàlla la waaye bokk fa di ko tuddoo ñu di la ko tudde may yëkkati ay wagg man te dufuma ci dara fexe ba bokk ak diw moom kenn mënu ko bokk ci diw kenn mënu ko fexe dogalub yàlla la waaye damay fexe ba fu diw yemoon boo ñëwee ñu xaw a fàtte diw ndax sa jéego yu gaaw te jege ñu ngi sant bokk yépp gis nañ daal fi gis nañ fi dal ay benn benn kaar kaar yàlla bu jéego yi neen li ñu dëgg ba tax ñi amal jataay yu ne mel yàlla nañ ca ak ak jàmm te weesu ko lu yàgga yàgga yàgg yàgg ji nag bu ko kenn wutal fu muy yem ndax nit ñëw na ci Cheikh Mamadou Fadal ne ko dama la yittewoo mu ne ko bismillah équité eh, bi sëñ bi doon waxtaane léegi ci yorin bu rafet ñi ko fekkee nee nañ kenn mu sa tax mu jógee fa mu toogoon di dugg di gisee ak yow koo mën a doon a nañ bu fekkee dañ ko war a indil ab siis mooy nañ ko indil ab siis bu dee dañ ko war a indil ak basang mooy nañ ko indil ak basang romb leeso dara <coughs> jóge ngi bëgg a fàttali fu hmm? waaw ne ko damaa ànd ak borom baraag bi ngay wax ba gisatuma ko ma dem ci Cheikh Cheikh Moustapha ba gisatuma ko mu ne ko nga bëgg lan fas yéene ànd ak yow lu yàgg mu ne ko bul noppi def ko werd insha allahu suñu àggee jàmm danaa teg cant yi ak ngërëmu sëriñ bi ci loxo suñu Ahmad Badawi yi mu xamal sëriñ bi ne ko bokk yaa kenn ku ne bàyyi na lam doon def ña mën a ñëw ñëw nañ ña mënta ñëw yable nañu sant nañ ñëpp gërëm nañu ñëpp yal nañ ko fekke déwén te weesu déwén lu yàgga yàgga yàgga yàgga yàgga yàgg asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf si Ahmadu am naa kon eh, kàddu ñaan gi rek moo ci des bu ko defee waaye tollu rek. tàllal loxo yi hmm. eh, sëñ Ahmadou nee na sëñ Fallum ma roq ya ma def ñaan dafay fay toll rek sëñ Fallou nee na nga def ñaan sëñ bi sëñ sëñ sëñ Fallou nee na bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah nee na si <laughs> si na ñaan yomb na mooy ñaanal ma kay ci gerteem gi rek <laughs> loolu yomb na. <laughs> amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin amiin amiin amiin